maam rawati nag ki nga xam ne moo féete lépp lu jëm ci mbirum pàcc kon su ma taxawee fii di wax jàpp leen ni dama fee taxaw en tant que leader politique waaye dama fee taxaw pour wax ak sénégalais yi ci li nga xam ne moo naroon doon sama doxalin man bu yàlla defoon tey ma nekk président de la république te mu wute lool nag ak doxalin bi am tey waaye laata ñuy egsi si loolu dina am ñaari pàcc wala ñett yoo xam ne faaw rek ñu leeral ko malheureusement ni ma ko bëggee woon mënul demee noonu ndax dañu am problème technique dama ne woon nañu teel a installé télé bi defar ko ba nga xam ne yenn yi nga xam ne dafa laaj ñu projeté ko sénégalais gis ko ñu mun koo génne malheureusement problème technique am ba loolu mënuñu koo projeté waaye li ñuy wax fii lu bëri dañ koy def après benn tribune boo xam ne dinañ ko publier ci presse bi publier ko ci réseaux sociaux yi ba sénégalais bu ne mën cee jot gis tam détails yi ñuy wax bi njëkk bi ñu bëgg a leeral balaa ñuy ñëw ci li ëpp solo ci mbir mi mooy dañoo jàmma dañoo dañoo dañoo euh, jàkkaarlook gouvernement gouvernement boo xam ne li ma mën a wax ci mbir mi mooy ab échec la mooy ab lajj la waaye dafa di lajj boo xam ne nag du lajj bu bett kenn lajj la boo xam ne dañ dafa mel ni dañ ko programmé woon bi ma bëgg a njëkk a leeral mooy ñoom bàkku nañ fii ne ñoom ñoo gën a baax résultat ci àdduna ci ni ñu gérer coronavirus ba sax dem nañu ba ay gouvernement américain wala xamu ban organisation internationale di leen félicité barki démb rek dégg naa benn journaliste waxaat ko di ko laaj benn médecin loolu amut amut li am mooy septembre 2020 dafa am benn journal américain ab journal laa wax de pour wax leen ni ñuy manipuler opinion bi ak ni ñuy wëlbatikee wëlbatikee mbir yi pour jaay seen bopp ak wax lu dul dëgg journal boobu mi ngi tudd USA Today journal boobu dafa bind ne Macky Sall et son gouvernement peuvent être classés parmi les deuxième ou le premier mondial deuxième mondial et premier en Afrique sur la gestion de la COVID-19 ab journal la ko bind mënoon na doon journalu Sénégal gi mënoon na doon journalu Bénin mënoon na journal feneen yàlla dafa def mu doon journalu américain gisuma lu mu ëppalee journalu keneen nag ndax day gëstu rek xool bind ñu jël loolu daal koy yëkkati fu yeggal ko fu mu yeggul léegi su dee yow journal bindoon na de septembre beneen ne yaa gën a baax les résultats ñi ñëw tey mille juillet 2021 fu ñu natt nga nekk fan ci ndatte wala nga nekk fa ci ndaare yi li may wax dama koy firndeel ak ay statistiques yoo xam ne yu ñu liggéey la te lii moom laa bëggoon projeté ministère mënu koy weet weddi virgule ci li may wax fii su ko bëggee weddi it mun nañu def débat publique ci li may wax nii parce que ay chiffres la yoo xam ne chiffre officiel la lu chiffre Ousmane ko inventé wu ma ko chiffre officiel yoo xam ne statistique mondiale mi ngi ci waaye statistique par pays mi ngi ci statistique par zone mi ngi ci boo jëlee zone bi ñu bokk ñun muy muy zone CEDEAO ñun CEDEAO la ñu bokk CEDEAO fukki réew ak juróom la fukki réew ak juróom soo defee statistique u CEDEAO yi ma jox leen statistique yi li mu joxe ci lu gaaw a gaaw boo jëlee premier point bi ñu wax ko taux de test par rapport à la population par pays mooy soo jëlee réew mu nekk nu mu toll ñaata nit dafay dund nga natt ñaata test la ñu def pour natt jàngoro bi pour xool ku ko am ak léegi ku ko am ak ku ko ñàkk boo jëlee loolu te chiffres yi may joxe mooy chiffres yi nga xam ne mise à jour au 18 juillet 2021 la mooy ci weer wii daanaka Euh, euh, euh, fukki fan ak ñaar ci gannaaw soo jëlee chiffre yooyu lañ lay wax mooy Sénégal mooy huitième sur quinze huitième avec un taux de test rapporté à la population de 3,54 pour cent soo jëlee indicateur bu ñuy wax taux de cas positif par rapport au test réalisé mooy bu ñu jëlee bu ñu nattee ba pare suñuy seet su suñu nattee téeméeri nit ñu war a seet ñaata nit a ci am jàngoro Sénégal moo ci classé deuxième c'est-à-dire ñi ëpp jàngoro bi fu mu feeñ par rapport ak taux de test bi Sénégal moo ci classé wu deuxième avec un taux de 8 virgule 56 pour cent ci jamono jooju moyenne CEDEAO mi ngi ci 6 virgule 44 pour cent loolu muy beneen mbir soo jëlee li ñuy wax taux de cas positif par rapport à la population xam nga bële par rapport ak ñi ñu testé la mais par rapport ak population bi yëpp boo jëlee ñaata nit ñoo am jàngoro bi ci test yi di nga gis ci Sénégal mu ngi ca jël ñetteel ñetteel ñetteel bi gën a fort taux d'infection ak un taux de 0,30 pour cent ci too ci moyenne boo xam ne moyenne CEDEAO bi mi ngi à 0,32 pour cent boo jëlee li ñuy wax. ba tey taux de décès par rapport au cas positif mooy boo jëlee ñi jàngoro bi jot ñëpp ñaata la ci seen ba bakkan jaare foofu boo ko jëlee Sénégal mu ngi classé wu cinquième bokk na ci ñu ko ëpp cinquième ci ci ci quinze pays cinquième ci fukki réew ak juróom ak un taux de décès de 2,34 pour cent mooy ñi jàngoro bi dal euh, euh, euh, téeméer boo jël am na ci ñaar ak genn wàll su dee mun nañu wax genn wàllu nit ñoo xam ne jàngoro gi faat na leen donc ñun ñoo ci classé cinquième ci jamono joo xam ne moyenne CEDEAO bi nee naa la ñun ñu ngi ci 2,34 moyenne CEDEAO bi di 1,31 1,31 boo jëlee taux de décès par rapport ak population bi mooy. nombre bakkan yi rot ci Covid bi nga natt kook population général bi ñun 16 millions la boobu boo ko jëlee Sénégal moo jël premier mooy ñoo ci ëppale ñëpp avec un taux de décès de 0,0071 pour cent alors que moyenne CEDEAO bi mi ngi 0,0016 pour cent boo jëlee taux de cas su traitement par rapport au cas positif mooy ñi nga xam ne bu ñu leen nattee ba pare ba gis ni ñii dal na leen ñii nga xam ne ñu ngi leen di faj par rapport ak ñi am cas positif Sénégal it quatrième la ci placé wu avec 14 virgule 52 pour cent de taux de traitement de cas sous traitement alors que moyenne bi mi ngi à 4 virgule 51 pour cent yeneen ak yeneen ak parce que damay bañ statistiques yi guddal ngir mi trop mais li ma bëggoon firndeel foofu rek mooy li ñuy wax sénégalais yi amut